léegi musique nan la ñu def ba composer ko ba muy génn note bu do ré la si do waaw xam nga loolu la musique c'est des ondes mm -hmm. l'onde c'est la langage universel de l'univers wow. c'est-à-dire booy utiliser ay euh, ondes mhm. phénomène vibratoire la mm -hmm. waaw c'est des perturbations dans molécules dans l'espace tout simplement mm -hmm. donc agitation la rek booy def ci molécules yi c'est ce qu'on appelle l'onde n'est-ce pas euh, sonore mooy l'onde sonore mooy da ngay créer benn bruit mais lan moo tax par exemple bruit rek la musique bruit la. waaw lan moo tax bruit yi musique neex xàndigu daanu neexul pourquoi. <laughs> waaw. parce que rangé la wuñ ko. waaw <laughs> bien. parce que organiser wuñ ko. voilà uh-huh. son bi bëri bëri ko bu daanu kër rëg rëg rëg wàcc est-ce que ni réel suuf kenn du ne neex na mais dangay dégg benn jël benn instrument jouer benn not nga gis ni dafa neex non c'est extraordinaire pourquoi parce que xol moo ko def du instrument bi moo ko def mais xol moo ko def mhm. ton bu fréquence yooyu daf ci am ay fréquence yoo xam ne dafay neex nit boo demee ba gis musique bi nga xamante ni si par exemple dafay dafay agacé nit daf koy angoissé mhm. parce que fréquence yaa ko neexul waaw parce que non parce que dañu yóbbu fréquence yi à 440 hertz mhm. alors que 440 hertz fréquence la boo xamante ni si euh, c'est de fréquences per dafay perturbé l'être humain dafay agir nit ki alors que bu nekkee 432 hertz moom la njëkkoon bu jëkk 432 hertz la woon c'est la fréquence de la nature 432 hertz objet yi ci nature bi yëpp vibration yi def dafay émettre benn fréquence de 432 hertz ak 432 hertz moom mooy li si mooy sa bakkan sa nafs ce qui veut dire que yàlla dafa composer nature bi ak nafsu nit moo tax nature bi di la apaiser di la jox benn sensation benn di la di dindi ci yow benn stress di di def ci sa yaram benn sakina ngay sentir ce qu'on appelle les de gravitationnelles les énergies négatives commencé di la évacuer boo nekkee ci environnement bu calme ay ñax ay garab picc yi sab sabu picc yi mba euh, mbott yi ŋaax fas yi ngexal leneen sa molécule yi sa yaram lépp dafa am benn vibration de 432 hertz. waaw mais rock nag euh, rock. kon lan la ban ban hertz lañ ko yóbbu moom. musique yëpp mën na dem 440 hertz ça dépend ci note yi xam nga dañuy utiliser souvent. parce que mu neex ah. ah parce que mën nga egg foo xam ne mhm. ci perturbation da dem ba da ngay loolu maanaam tey ki nga xamante ni si. dafay lekk lu weex ba finalement lu weex moo neex ci moom. Mhm. weex ko ci moom mais dafa neex je suis d'accord. Mhm. voilà c'est ça donc yow am na benn rythme musique bu ko forcer bu demee bu loolu ngay apaisé woo da ngay gis nit ñoo xam ne par exemple bu nekkee fu calme day troublé wu foog mu nekk fu bruit bëri bruit pour nekk à l'aise dëgg la mais bu nekkee fu calme day gis day wu day jaxasoo day hmm. perturbé wu hmm. parce que dafay mel ni à l'intérieur de lui-même dafa am lu koy agité luy remonté te bruit yi am à l'extérieur moo koy contrer ba tax moom mu centre benn équilibre c'est ça le problème hmm. donc musique boobu nag noonu lay noonu la ko nit di du dundee 432 hertz yooyu mooy fréquence su nature bi bu njëkkoon musique yëpp foofu loon mais quelque temps après lañ ko yóbbu à 440 mais ay Mozart boo ko xoolee yooyu yëpp 432 hertz lañ doon utiliser donc musique boobu li koy def art la c'est de l'abstrait c'est de la métaphysique c'est pourquoi mu am cette capacité de nuisance wala mu def kii mhm. nit bonheur mhm. donc bu fekkee da nga indi nag musique boo xam ne c'est 440 hertz là dafay épouvanter les âmes dafay perturber yenn nit ñi dafay agiter say molécules yi composer sa jëmm sa jëmm ji yëpp moo tax bu fekkee nit ki dafa dem ba egg ci àll boobu mën nga gis ni mu nekk koo xam dafay déglu par exemple musique 440 hertz dafay dem ba benn moment yenn saa yi day toog day jékki-jékki tiit day sentir benn peur bu mu xamul lan la te da gis mu mel ne kuy trembler day xaw a trembler moom ci boppam day sentir ni day trembler te mun la wax lan la day du am épanouissement xol bi day naqari xol bi day metti mhm. parce que musique bi muy déglu baaxul mais bu fekkee dafa jël musique boo xam ne par exemple dafa dellu ci musique jëkk ya

frénésie musicale en tout cas da gis ni ñu koy joué du ñu dal du ñu am sago dañuy rëpp rëppi dañuy téppi téppi du ñu dal du ñu am sago mais da nga gis ku mën a toog nii déglu musique posément parce que nit ñi amatuñu oreille musicale boobu pour mën a savourer son yooyu nga xamante ni si dafay euh, dafay mën a tukkee ci ci instrument yooyu nga xam ne